ci ndigalul alxalifatu tijaniya cheikh mouhamadul mahi ibrahima Niass ak cheikh mouhamadul axibu ibrahima Niass ak imaamul akbar bu Medina Baye cheikh ahmad Tidiane ali Cissé ak cheikhu gas Thiam nekk kilifa gu mag ca Thiamé kër amandange ñoo leen di yëgal seen gàmm gi ñuy am ak chaque année ñu ne ren jàpp nañ ko samedi le 12 février 2022 andi ceeg mboolem doomu Thiamène ñu parane ko ay kilifa yu mag ku ci mel ni Serigne Aliou Cissé Babul Hadara ak Kéba Thiam ñu gën koo xam ci Kéba Nabou Thiam nekk kilifa gu mag ca Thiamel Kër Amandange ñu ne programme bi nii lay tëddee gannaaw biñ xëyee 9h dinañ fa jàng li nga xam ne moo di alquranil karim ñaanal woy dawlu yi ñaanal mboolem doomu dëkk bi buñ jullee tusubaar dinañ dallu daal di ànd ak gan yi xéewalu buñ jullee tàkkusaan danañ fa amal conférence bu mag ànd ceeg imaamul akbar bu Thiameen Babacar Mbaye Thiam ñu gën koo xam ci Mbaye Donde danañ fa amal xadara bu mag wasifa ak kilifa yi daldi di julli gaye xaar li nga xam ne moo di programme bi zéro heure ñu ànd ak ki nga xam ne moo di Baye Thiam ci gàmm gi ñu gën koo xam ci Baye Thiam mu sëriñ axibu kon nag bés baa ngi noonu ñu ngi ko yëgal mboolem dëkk yu leen wër fu ci mel ni kër Assane Diassé kër Madi Yacine kër Malayin Mbajeen Njaayeen kër kër Samba Mat Kooti kër Birane kër Samadi kër Seydou Ba kër Njaga kët Bourama Diarra di ko yëgal kën Matar Fatou diko ko yëgal ñiilin gu mag ñiilin sanji di ko yëgal njëngeen kër Ali Mati fàttewuñ fas dàkk fas Matar Soxna di ko yëgal Medina Salaam waaye di yëgal ngayeen gu mag caameen ka Mama Binta caameen Njëfoori caameen ka Souleymane ba ci caameen Jogo kon nag bés baa ngi noonu bu ko kenn tardé samedi le 12 février 2022 ceek mboolem doomu caameen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. حول لا